Agora, como é que Ousmane Sonko monsieur le ngeen ko gisee la président Ousmane Sonko tàmbaliwaat li nga xamante ne moom mooy nemmeeku tour bi mu tàmbalee ko nag fii si commune bu Morolan gannaaw ba mu waxtaanee ak askan wi. ñi génn di saafonteeg moom ndaw ñi mag ak ndaw ñëpp ngiraan di ko topp ndeysaan mag ñi mag ak ndaw ñëpp taxaw ngir euh, saafonte ak ki nga xamante ne mooy le président Ousmane Sonko. accompagner le futur président de la République de tous les Sénégalais le 25 février 2024. formalité ñu defee xam nga ni lii daw yaram la lii lu daw yaram la xoolal ndaw yi. kon ñii ñii nii taxaw. di ko xaar. koroo day taxaw ko yëg doomu aadama la koroo day taxaw ko yëg doomu aadama la Avec précis. kon mbokk yi ñu ngi leen jox euh, dig daje ci beneen étape nemmeeku tour bi incha allah. jërëjëf. asalaamaaleykum mbokki Morolan ñu ngi leen di ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen gërëm ci tertu bi ngeen ñu tertu waaye di wax tamit ni am nañu mbégte bu rëy a ci teew fii ñu ngi jiital ci nuyoo bi kilifa yi ñu fi fekk imam Fall ak kim fi toogal imam Ratib waaye di nuyu également oustaz Ciss ñu fi jël kàddu léegi di nuyu kilifa yi jigéen ñi toog fii di nuyu aussi la jeunesse de Morolan di leen masaw bu baax nag ndax bi ñuy dugg ci dëkk bi gis nañ gan yi gan yi leen yónnee tey te du gan yoo xam ne du gan yoo xam ne yéen ko laajoon ba ñuy dugg ci dëkk bi gis nañ fi li liñ fi gis ci ay ay kaaru gendarmerie ak ay auto gendarmerie bëri na lool ñu leen koy mastaw nag ndax Oustaz léegi wax na jaay doole bi ñu leen jaay doole it ba fekk leen seen biir kër ne faw ñu génne leen foofu parce que waru leen fa daje ma di fa dalal Sonko nee nañ ma sax am nañu fi jaar ay alkaati yu fi jaar di essayer terroriser ndax noonu lañ ko mën a tuddee naan leen mënuñoo jàpp Ousmane Sonko waaye bu fi jaaree ba dem dinañ leen ñëw jël si ma wax ko nag waa Sénégal yëpp dégg ko lii mooy nguuru Macky Sall yéen de waa Morolan li ngeen doon xaar ci Macky Sall mooy mu defar tali bii li ngeen doon xaar ci Macky Sall mooy mu bàyyi leen ak seen suuf waaye gasal leen ay teen jox leen engrais ngeen mën a bay waaye xaare leen ci Macky Sall mu fiy yónni ay alkaati pour ñu ñëw di leen menacer xaarewu leen ci Macky mu jël ay centaine d'hectares jox ko waa bitim réew ñu ñëw di fi bay di génne wala di wala di jaay ci njëg boo xam ne yéen su ngeen bayee seen i deux mu leen concurrencer ñooñu du li ngeen doon xaar ci Macky Sall nguuru Macky Sall fukki at ak ñaar boo ko doon résumé ci benn kàddu mooy échec total parce que gis-gis ak xam-xam bi war a defar réew Macky Sall amu ko yàgg naa wax ni ku bëgg a defar senegal fii ngay ñëw ci dëkku kaw gi fii ngay defaree réew ndax fii nga mën a baye fii nga mën a nappe fii nga mën a sàmmee waaye fii nga mën a taxawal ay unité industrielle yoo xam ne suñu bayee ba sàmm ba sàmm ba napp ñu transformé ko fi li ma tudd yëpp mënoo ko defee ndakaaru xanaa mën nga napp tuuti ndakaaru waaye doo fa bay doo fa sàmm mu jël te mënatoo fa napp ndax jaay na géej gi ndax li xew fii diggante nappkatu kayaar yeeg waa ndar yi lan moo ko andi jaay géej géej gi ba tey suñuy mool suñu demee géej bu ñu dellu see duñu andi jën kon kuy defar réew da ngay ñëw fii fii ngay ñëw andi investissement yi 1500 milliards yi mu defar ci benn autorail boo xam ne 39 39 kilomètres la bu ko andi woon ci dëkku dëkku kaw gi tey Sénégal du ceeb du diwlin du suukar du leneen loo xam ne dañ koy jéggaani ci biti te ndaw ñi fi nekk ñëpp dinañu liggéey xaalis bu bëri bi muy jël naan ma ngay tabax ay stade ma ngay defar ay BRT Ndakaaru mi ngi représenté 0,5 pour cent du territoire national nga jël quatre vingt trois quatre vingt trois pour bi yóbbu ko foofu léegi quatre vingt dix neuf virgule quatre vingt dix neuf virgule cinq pour cent du territoire nga bàyyi leen ñu nekk ci ay problème moo taxoon ne léegi exode ñëpp a ngi dem ndakaaru booy defar ndakaaru benn yoon balaa yoon ba di pare lay jóge ci biir Sénégal di ñëw ndakaaru mooy ëpp li yoon boobu mën a àttan moo tax li ñuy def nii yëpp sànni xaalis la ville nouvelle Diamniadio BRT échangeur autopont euh, euh, terre yooyu yëpp sànni xaalis la tant demuñu ci fa nit ñi dëkk ñu fexe ba investir foofu nit ñi toog fa ñu dëkk am fa seen teranga am fa seen koom-koom di fa faju di fa jàng loolu rek mooy solution bi moo tax ma ne leen massa Sénégal yëpp lañuy ñuy masawu ndax mën naa ne ñàkk nañu fukki at ak ñaar ci loo xam ne lañ la dénk yow muy nguur pour nga defar réew mi nga jëriñoo ko ci dal ci nit ñi su ak ngoon ku ne ànduma yow nga ne tey ma tëj ko kaso ku ne ànduma ak yow nga ne tey ma pexeel ko gis ngeen li xew barki démb Ngor ñaaw na ñii doole gi ñuy wone fii fan lañ ko doon xaare ci ñoom mooy samba boo yéeg day defkatu ñaawteef yi ñu yóbbu ko foofu mais ñëw fekk dëkk bu paisible ku dugg ci dëkk bi xam ni fii fitna amu fi fii bandi amu fi fii amul luñ fi ñëw garde te it li gën a doywaar sama grand xalifa Khalifa Sall ma nga doon def mottal yéenem kenn gisul benn kaaru gendarmerie bu ko topp Malick Gakou ngi def ay tournéem kenn gisul benn pick-up gendarmerie bu ko topp keneen ak keneen moom Macky Sall saa su ko neexee mu dugg ci dëkk bi ne day def def tournée économique waaye lan moo waral usmaan Sonko moom saa su jógee rek ñu yenu armée nationale yépp ne topp leen Ousmane Sonko lan moo ko waral mooy wax nag may wax nag ni koo xam ne juróomi at ak lu tegu yaa ngi koy essayer pexeel ak xoqatal mënaloo ko dara Macky Sall bu dese woon tuuti xel dina xam ni man duma ragal bu ko ma ragal te amul ragal bu ànd ak man est waa Morolan da ngeen ragal ba tax nag dégg naa lañ fi wax ci kàddu problème morola mooy problème mu Taïba Ndiaye mooy te problème mu Daaru Xuddus mooy problème mu Meewaan mooy problème mu Kañobo mooy problème mu Nooto mooy problème mu Podor mooy problème mu Fatick mooy problème mu fépp kon su may wax li may wax dama koy maasaale li tax ngeen topp si ñun sax ngeen dalal ñun ngeen ñu dalalee a ah, gaw ma ni bëri na ay leader politique yoo xam ne bu ñu fi ñëwoon dinañu am bii tertu te lii ngeen lii ngeen toppee ci ñun du xaalis bu ñu leen jox du liggéey yu ñu leen def waaye ay boroom xel ngeen toog ngeen déglu seetlu ràññetle ba xam ni lii ñu gis ak lii ñu dégg li war a soppi réew mi ci lii lay jóge loolu tax ngeen ànd ak ñun ñuy xeex boobu ba léegi fukki weer nag moo des fukki weer xam nga fukki weer bëriwul fukki weer moo des pour ñu démarrer suñu révolution bi ñu bugg a commencer fii senegal mu law nag dem Afrique yépp fukki weer moo ci des ma bëgg leen nag ñaan. ndax ñun sénégalais ci li weesu dafa mel ni ñun mënuñoo xeex ñun mënuñoo xeex ndax ñaar ba ñett léeg-léeg ñuy xeexee ba jege résultat fa nañu di wàccee seen loxo ñaareel bi mooy bu xawee metti tuuti dina am lenn ci gaay yu wëlbatiku il faut ñu am la sens du sacrifice yàgg naa leen wax ni man bu dee sama jëmm ji laa war a tayle pour Sénégal baax définitivement tayle naa ko ba pare. ba tax nag ma bëgg li ma bëgg li ma bëgg ñu bokk ñun ñëpp def mooy fukki weer yi ku yaakaar ni fukki weer tëdd nelaw la da ngay nax sa bopp fukki weeru résistance la résistance bi nag jeunesse su Sénégal bi yëpp ñoo ko war a bokk. mag ñii ñi ngi ñaan ñu génn ci mbedd mi waaye ñi ngi yor seen kurus di ñaan waaye ndaw Sénégal laa bëgg wax xam ngeen ni dix mois di ñëw mooy déterminer seen avenir pour cent cinquante ans yi ñëw est-ce que di ngeen seetaan Macky Sall ak gendarmerie ak police ak ay magistrat am yàq loolu di ngeen ko nangu moo tax nag bu bu takku jotee ñun ñëpp nañu ànd takku ku ci mën a dem Dakar na dem Dakaaru waaye ñun ñëpp dañu ànd takku jàkkaarloog Macky Sall ak ay pexeem loolu mooy li nga xam ne seen wàll la bu ngeen ko defee nag mën naa leen waatal fii ma toog nii Sénégal yàlla defal nañu lépp ñu développer ba mu des njiit ñu baax lépp ngi fi ñaan yaa ngi fi géej gaa ngi fi zircon baa ngi fi pétrole baa ngi fi phosphate baa ngi fi gaz baa ngi fi pétrole baa ngi fi suuf suñu mën a bay a ngi fi lan moo fi manqué est xam ngeen ni France amul lii ma wax yëpp France fii la koy utsee lii lépp France amu ko peut-être am na géej de waaye amul pétrole amul gaz amul zircon amul li ma wax yëpp fii la koy utsee ñu ñuy noggatu boobu ba léegi di jël suñu alal di ko yóbbu bitim réew te ñun suñuy ndaw bu ñu bëggee dem bitim réew ñu ne leen du ngeen fi yegg si est-ce que mën ngeen continuer lool lii mooy li ñu waxanteeg yéen bu ñu yeggalee ba dix mois yi yàlla def li muy def suuf suñ fi nangu woon ci jàmbur parce que suuf réew waa réew maa ko moom suufu gox waa gox baa ko moom ku leen di jàppale da ngay ñëw jàppale leen ci defar ay teen jox leen engrais may leen ay machine ñu liggéey am seen autonomie waaye kenn du leen jàppale ci dagg seen suuf di ko jox waa bitim réew kon lii mooy li ñu war a séq ñun ñëpp defe naa nag daanaka benn fan wala ñaar moo des ci inscription yi ndaw bu e- gis nañu mobilisation ndaw ñi ñoom foogoon nañ ni buñ ko defee 20 jours ndaw ñi dañuy découragé ba ñu dem bindu ji waaye gis nañu ndaw ñi ni ñu demee song ji lieu de yi ñu ngi leen di ñaan su fii ci mbooloo mi ak ñi ñuy déglu ci Sénégal yëpp nag ndax ay direct la ñuy def bu amee benn ndaw bu am 18 bindoogul te gëm projet bi war a changer réew mi mooy projet bi bu mardee ngir yàlla nañu jóg ñoom ñëpp dem bindu ji que balaa nga naan naam ne fa balaa nga naan naam ne fa noo bëgg a bëgg changement te bésu sànni carte demoo sànni carte amul njëriñ ñuy daaneel nag di leen gërëm di wax ne démb lañu waroon door tournée bi fii gàllankoor am am na rek ay programme yu ñu fi invité woon comme cant bi fi waroon am borom cant bi ñu ngi leen di jéggalu ci ñàkk teew bi waaye bu soobee yàlla dinañ ko dabu beneen yoon waaye lépp lu ngeen fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu kon ñuy gërëm waa Morolan yëpp comme bërëb bi ñu war a dem dafa bëri kontaan nañ ci ñëw bi ndax ñëw bi dafa am ñaari solo ba ñett bu ci njëkk mooy suñu ndaw ñii toogal ñu fii te ñu leen koy dénkaat bu baax moom ak ñi muy liggéeyal ñëpp nag moom Mouhamed Fall ñëw gi da leen di gën a yokku légitimité ndax yàgg na ci gox bi boobu gisuma xamuma di dox di dugg ci kër yi di wax ci Pastef ba tey waa Morolan li ci ëpp fu nekk seen dënn kon suñu ñëwee fii dañoo ñëw pour delloo ko njukkal moom it ak ñi muy liggéeyal ñoom ñëpp ñaareel bi ñaareel bi mooy ñëw xamanteeg waa commune de Morolan parce que it di dégg Sonko di ko gis ci télé baax na am cofeel ci moom baax na waaye giseeg moom mu ñëw ba sa dëkk parce que nit amul lu dul dëkkam kon loolu solo la ci mbir mi kon kontaan nañ ci ñu ngi leen teer ñi ngeen ñu teeroo ñu ngi ñaan yàlla mu def fi jàmm yokk ko def jàmm ci Sénégal yokk ko yàlla may ñu ñu egg 2024 ci jàmm te 2024 waxuma la 18 heures de parce que xam nga élection moom ku dugg di voté boo gisee bulletin yi ci suuf di nga xam ban bulletin moo bëri ci biir midi bu ñu yeggee midi ku nekk Sénégal xam ni mbir mi ferenkulaay na te prochain président de la République du mu ngi tudd Ousmane Sonko maa ngi leen gërëm leen la dagg waaw bu sell la bu sell kaa ngi nii waaw mais boy boy boy boy Telle le film, telle le film.